asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 25 juillet 2019 ñu ñëwee ci yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey jàppal yëglikaay bi di sunu làmb Les Échos journal bii nga xam ne nii day mooy record ba ci soleil wala sax Leewtoo TV ku nekk rek tey xëy nga ñëw ci li nga xam ne moo amoon démb ca Pikine te Eumeu Sène amaloon ko muy open press mu mel ni ki nag yëglikaay bi day nee na Pikine daal fi mu nekk nii noonu yëngu yëngutu nañu de yëngu nañ bu baax a baax la ñu nar daal moo di dóor fayu maanaam daal ku naaj loolu fi mu nekk nii décision boobu la ñu jël démb wane nañ seen bopp ca Pikine fa nga xam ne nag moo di stade Alassane Djigo mu mel ni ki mbooloo ma moom foo ko takk rek weesu woon na ko ñëpp ñëw génn moo xam mbër yu mag la la ba ci ñu ndaw ndaw yi jàppal kii nga xam ne ni day moo di Pape Diop Boston Balla Beye numéro un De Gaulle ñoom ñëpp dañoo génn mbër yu ndaw yi tamit génn nañu moo xam ñoom soq la kii nga xam ne nii moo di booy Niang ba ci Ama Baldé kenn manqué lu rendez-vous ba ñëpp daal ñëw nañu fas yéene woon Eumeu seen nag ne ko mooy bis bu nu yeggee dimaas moom Modou Lo gañe ko dong ngay def mu mel ni ki nag Eumeu Sène moom itam moom moo waral bis ba de yëngu na yëngal bu baax a baax a baax a baax moo tax nag moom Eumeu day mu ngay wax la nga xam ne nii day moo am ñu ne ko sa diggante ak Modou Lo bu yàgg Eumeu ne na li leer ba leer day bu yàggee moom ci moom lanul baax ndax nag bis bu ñu yeggee ci combat bu mag combat ba diire moom dina metti trop trop trop ci moom waaye kii nga xam ne ni mu di Eumeu Sène day mu ngay wax ba tey de nee na leer ba leer nag ñu ne ko sa fecc bi mu ne fecc bi daal li ma ci jublu mooy delloo njukkal sama mbokki séréer si nga xam ne ñu ngi may jàppale guddi di ma jàppale li nga xam ne ni moo di bëccëg moom ba tey Eumeu Sène mu ngay wax de nee na kii di booy Niang tam maa ngi koy encouragé waaye maa ngi gërëm ki nga xam ne nii moo di Ama Baldé bu baax a baax a baax waaye tey ca yemu ca de mu ngay ñaanal kii nga xam ne nii day moo di Tyson 2 ak ngeer ñoom itam day seen combat yi ñu jëm samedi ñu gagné ko Eumeu Sène daal mu mel ni ki démb moom yëngal na Pikine ba mu yëngatu waaye jàppal kii nga xam ne nii day moo di Tapha Tine ko yéen ñaar a ngi wax mu yow ak Modou Lo jàpp leen ne ah, dimanche moom ndënd maa leen koy sampal ba mu saf sap waaye ba tey daal bu ñu continuer yëglikaay yi tey xëy nañu waxaat de bàyyeeguñu le soleil la ca Eumeu ne daal nee na day li leer ba leer moom roi bi moom ah dinañ def lépp lu ñu mën daal ba mu des fii nga xam ne nii day mooy ca Pikine Eumeu Sène loolu la xëy di wax fa nga xam ne nii moo di ci yëglikaay boobu waaye ka mu ko seqal day ci combat ba record ñëw na ci moom muy Modou Lo mu mel ni bi jàpp na day 82 pour cent de réussite daal Modou am na ko mu mel ni kii nag wàllum rock ba wala énergie ba moom bëri na bu baax a baax ci côté kii nga xam ne nii day moo di Modou Lo mu mel ni ki daal seen combat bu fi mu nekk nii day la olof yi wax rek moo dafa waxu te mooy liy aay di njàmbat ñëpp ñu nga cay wax mu mel ni ki daal fi nekk nii day jàppal open press ba moom tàngoon na bu baax a baax a baax a baax moo tax nag ëma seen yëglikaay bi di liise ko day ëmaa nga fay wax ne na làmb ji moom dimanche daa war a saf-sap sama diggante kii nga xam ne nii day moom moo di sama adversaire waaye ba tey daal bu ñu continuer dem ci beneen combat boo xam ne day ci bi la war a am muy diggante kii nga xam ne nii day moo di góor a soog ak Tyson 2 mu mel ni ki tamit jàppal yëglikaay bi nga xam ne nii day moo di record mu ngi ñuy xam ne Fallou Ndiaye day lu toll ci cinquante cinq millions moom la génne ngir galaab samedi bii nga xam ne ni ci la ñu jëm mu war a am nag le vingt sept juillet yëglikaay bi xëy na tey ñëw di ñu ko wax waaye jàppal de diggante taay singa ak dóor dóoraat mu mel ni ki nag ci 2016 moom bëre woon nañu puissance moo gañe woon kii nga xam ne nii day moom moo di adversaire ba mu amoon ci écrit booba tay seen deux tamit gañe garga deux mu mel ni ki kon amoon nañ ca ñoom deux ci jamono jooju moo tax nag yëglikaay bi di laajaat ba xam ndax samedi noonu lay demee wala ñee dañuy fayu keneen koo xam ne ni ñoom daa am ku mu bëgg a corriger moo di Jordan bi nekkoon écrit tay singa te léegi mu beru dama xam sa cosaan Jordan daal nee na Malick Niang moom li ma bëgg ci moom lenn dong la jubbanti ko ba mu jubbanti ko nee na loolu kese kese laa bëgg ci moom waaye leneen loo xam ne ni day ba tey coow laa nga cay continuer diggante Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers 2 nag mu ngay dànkaaf espoir yu ndaw yi nee na leen day li leer ba leer te ngeen maa bàyyi ma tranquille ndax yéen génération boobu amul lenn loo xam ne man ngeen ko ci man kuñ itam boo cay génn du neex ci yow keneen ka nga xam ne nag moo yor communication di asu jóob moom dégool lay waxal nee na moom day mauvaise perte daal la ko tudde ku ñàkk ba pare daal di ñànki waaye ba tey ñu ngay wax de ñoom ka nga xam ne nii moo di toos di nijaay lak dëggee numéro da ba tey mu ngay wax ak dégool jàpp na ne day moom fi nekk nii day waaw nekk fi daal di wax la def ak loo xam ne nii day loo xam ne am na ba pare mu nekk ca di wax te jar ko moom boo bëggee dégg dëgg defatu ko waaye li leer ba leer day li ma la mën a xamal day yàgg maar bii moom nar naa saf sap ndax nag boo bëggee dégg dëgg samedi xam nga ne Fallou njaay mooy ñëw tey seen dëggër a soog kii nga xam ne moo di Ferus doomu dangu maama Lamine Jokkel waaye la ca gën a neexati drapeau Moussa Diaw ba diggante ngeer bu zap ak kii nga xam ne nii day moo di Franc bu parcelle muy lu nar a wex waaye dimanche ja jàppal combat royal bi nag daj dëpp gi ëmma seen mooduloo waaye jamono jooja jax moom mu nga Iba Mar Diop ak 3 millions mu mel ni ki daal kon fi mu nekk nii moom ah weekend bi dana wullee ñaay Aïssatou Faye boo ciy dem Iba Mar arène nationale wala Léopold Senghor faw nga wax ma nag ban nga ciy dem ay sa Siri Moussa Niang moom laa toogal sama rakk ji yaru lool waaye asalaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee ak yéen chaque jour ànd ak yéen seen revue de l'arène ak kan Babacar comme ni leen ko xamee chaque jour Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssatou Faye madame ñaa di la nuyu di la ziar di nuyu internet yi ñuy suivre ci Leewtoo TV yépp ak fu ñu mën a nekk rek bëggee nañ leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ko saaku si ñoom. Mm-hmm. ka dañuy daal di dugg si jàngat gi ginnaaw bi nga defee li nga xam ne ni mooy revue bi li amoon tey ci yéenekaay yi ci lamb tey ñu gis ni di ci gën a fës Babacar mooy euh, open press Eumeu bi amoon démb fële ci Alassane Djigo ñëpp xëyaat si tey gis mobilisation fa nekkoon ak li nga xam ne ni moom la Pikine def slogan tey muy dóor fayu waaw dóor fayu damay dégg gaa yi dëkk dóor amoon na de waaye fayoo ko tasoon waaw xëy na ñoom loolu la ñu bëgg a jël kon pour def ko dimanche démb nag vraiment dem nañu Pikine ci open press u Eumeu seen mais vraiment mbooloo mi foo ko takk weesu na ko stade Alassane Djigo tribune yi dafa fees ba nit ñi xajuñ ci bu mujj taxaw wër li nga xam ne nii moo doon fi ñuy defoon ki pelouse bi loolu nag li koy waral mooy que ni ah comme ni olof yi wax rek Euh, ku ne li nga am ngay duggee marché te àll bu ne la fay ñu la fa rim ñàkk Eumeu Sène actuellement mooy mbër bu magu Pikine ay rakkam ne ci ginnaaw ñoom Ama Boy Niang ak ñoom Sokh ak Jetleeg ñooñu actuellement tamit moom la yàlla dogal ne mooy roi des arènes lamb ji kon defe naa su jógee rafet na waa Pikine yëpp génn moo xam magu mbër yi la ndax gis na ñoom Pape Diop Boston ñoom Dégol ñëpp ak ñoom Balla Beye numéro un ñëpp génn nañ defe naa loolu mooy li war a am te mooy lu rafet kon yaakaar naa bu loolu amee nag bu mag ña génnee kon xale itam duñ fa des waaw <laughs> dañ ne bu tëgg demee lu fa upp yay des yaa ngi dégg kon yaakaar naa loolu su amee ñoom ñëpp ñu génn dem soutenir ko muy lu rafet rafet rafet ñu fa yéene nag jëm ci combat jàpp ne dañ leen a dóoroon te dañoo war a fayu ah loolu mooy li nga xam ne nii actuellement moom la ñuy demee ba dimanche ak jàmm comme ni ñu koy waxee nag ñaari ndamay dugg mais benn ay génn ak lu mën a xew waaye avant ñuy dem làmb ja nag ah ku ne di nga wax li nga bëgg wax li nga nar mais comme la ma ko waxoon nag ay sa géew dafa am réalité Eumeu Sène bi ñu gis nag mooy Eumeu Sène bu pare actuellement waaw ci côté yëpp boo ko xoolee mën nañ ne pare ci li ñu gis sunu ay bët li mu ñu may la ca des nag si kàttanu suñu borom yàlla nañ ko fekkete tal ku dimanche lañ koy xaare waaye daal xam naa ne démb moom yëngal na fa nga xam ne moo doon Pikine yëngal na stade ah, ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Adama Diallo way na lu neex. na cosaanu séeréer démb. <laughs> waaw non parce que non loolu dafa neex yooyu non wàcc yooyu dafa doy waar ay sa wàcc yooyu fa nga entraînement doo ko mën a wàcc. waaw waaw moo tax taala naan ma lii eh, doxinu naan ma ne ko lii mbëttay doxin yi wala bar waaw boo dëkkee kaw ga di nga xam ñaar yooyu mm. bu ñuy dox dañuy def nii pas par pas mooy yooyu laa gis mu def def na ko kër monument dafa am na ko dem Alsaan Jigo andi na ko contre Bombardier andi ko contre Bombardier nday Faatu Adama Jali way Mor Ngom tëgg muy lu neex a neex kon jàppal ne dimanche moom ah xalaat naa ne moom Euh, Léopold Senghor dana yëngu te dana riir. Mm. waaw nag dana neex dana yëngu mm. mu jëm ci combat boo xam ne daal combat bu difficile parce que moom ne li ko gën a intéressé mm. la wax te effectivement lay jëli ndax muru da koo daamam. Uh-huh. waaye ba tey combat boobu ñu ñu ngi koy waajal mi Babacar am na koo xam ne tamit moom mi ngi waaj taxaw di xaar muy tafaatin parce que moom nee na samp na ndëndam ba pare diggante ñaari mbër yëpp ku ñu daan ak ki daan dayamale pare na pour ñoom ñaar ñëpp. waaw loolu day lu war a mën a nekk la parce que nag ci la ci da cee bokk waaw te ku bokkul ci gétt gi naan ci meew mi dafaa daa bokk ci gétt gi maanaam bu ñu loolu mooy mbër mu mag la ni ñoom VIP ñoom c'est très normal euh, mu ñëw samp si fan dëndam parce que déggoon nañ fi Eumeu seen ci ay waxam mu wax ne tey ay adversaire am Modou Lo la kon fekkee moo ko ca bool da caa bokk c'est normal ñu xool bu sampee dëndam nag bu làmb ja tasee dinañ xam kan la ci war a mën a bëreel ak ku ko ci waaw ak kan moo ko ciy jël parce que tamit ñoom il faut ñu gën a bërewaat et puis tamit gën a mayaat ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw te jàpp ne ñu ngi ci bunt bi pour carte gën a mën a jaxasoo mm. waaw loolu foog mu am waaw ba tey kàddu gi jaxasoo na benn côté muy ñoom euh, Lac de la Lac de Guiers tamit euh, génn ginnaaw bi ñu joxee ndamam si kaw ki nga xam ne ni mooy Boy Niang moom nag day daan daankaafu ñi nga xam ne ñooy jeune génération bi nga xam ne ñoo bugg dugg cour des grands nee na bu yeboo nag moom nañ ko fi bare teg ko fi ni tegee bàyyi ko tranquillement te wuti leneen ma ko moom du doon seen bunt nañu fëgg yeneen bunt nañu ah, loolu day loolu la wax waaye ndax loolu dina tax ñoom ñu bàyyi ko fa yaakaaruma ko parce que nag làmb du lool de mm-hmm. Lac de Guiers xëy na nag am wax noonu gars yaakaar naa ne ku ko ndax am na koo xam ne nii tey demoon na ba làmb boole leen muy boy ñang ñu bëre. Mm-hmm. beneen xale yi tamit day ñëwaat. waaw noonu loolooy am parce que làmb ji dug mas dabante la xale bi bu liggéey ba ñëw ku ko jël. dang dañuy xam ne bokk na ku ko jël dañu xam ne bokk na xam nga Ama Baldé mi tey ci lamb kenn mënula amul VIP bu ñuy ku ñu tudde VIP koo xam ne nii man nga ne du sama adversaire xanaa kay man nga ne nag du ma bëreeg moom ndax problème mu xaas wala nangam ak nangam bu yëg seegul itam soreetu leen yaa ngi dégg te Sa Thiès a ngi foofu donte am na defet ci booy ñan booy Niang moom mu nga ca ñoom Modou Anta ñoom Yékini Junior ñoom Siteu guy gi Papa Sow bari nañu bu leen di lim duñu fi jóge Tyson ak Gora Sock mi ca lañ bokk dañuy ñëw Forza mu ngi fi ak yeneen champion Malick Niang xam nga bari na il faut am ñu yëg il faut ñu joxante loxo bëre mais nañ ma moyu xalaatuma ñu moyu ndax ku bëgg a doon champion faw nga daan champion nag mm-hmm. waaw ndax xanaa xanaa kay ndax daan ma dina yomb ci ñoom waaw loolu de naa koo dégg mm-hmm. ndax daan la dëgërit nag lu jafe-jafe la de ay sa tufay mm. waaw waaye xale yi duñu bàyyi à chaque fois <laughs> dañuy bëgg tenter seen chance pour yegg fa nga xam ne mooy si kaw tudd nga léegi ñaari xale muy Tyson 2 ak Gora Sock ñoom ñu war a bëre samedi sunu làmb tam ñoo def benn jàngat si ñaari écurie yu diggante Dóor Dóoraat ak nga mu ngi xamal ni fi mu toll nii nga moo mu ne lii di 2-0 ginnaaw bi fa puissance amee ndam Tyson 2 ci waxam daan fa Garga 2 tey nag mu ñu war a nekk nag seen troisième confrontation ñuy xaar nag nu muy mujjee ndax doodoraat dina am 1 wala ñee def 3-0. ah waaw loolu de jar naa bàyyi xel parce que comme ba ñu bëree 2016 waa Tyson nga ñu amoon 2-0 ci ah tey ñuy xool ndax bu samedi 3-0 dina am waaw loolu nag kon daal li am solo mooy que ni Tyson 2 ak Gora Sock na ma ko waxee rek combat bu nar a metti la ndax Tyson 2 na ne moo bëri Gora Sock te du moromam ay magam. ya muy àndal la jàpp ne ñoo ñoo di ay moromam. Mm-hmm. góor a soog jàpp ne moom moo ko laajte te da koy daan. loolu nag combat la boo xam ne kon ñoom ñaar kenn ci na buut sa morom maanaam ku ci ne fa nga làqu sa morom moom sorewul mais nag dimanche Fallou Ndiaye moom boole na leen arène nationale comme ku làqu woon nga làqar ku ñëw taxaw ci géew ba arbitre bu ngeen defante a neex nag ñun mooy drapeau Moussa Diaw ba rek ko wax parce que suñu kilifa la Franc ak Nguer ñaam ñooy ku ne dégg na li mu wax Nguer nee na ko da ngay ñëw daan su loolu la ko Franc wax Nguer waaw sax Babacar ñu fàttali ñi démb ñëw nañ fi def seen remise de drapeau ak seen parrain daal di jokkalante démb ay kàddu yu neex a neex. Mm-hmm. Fra moom ne ko dangay ngay daanu si yow ne na ko xam nga ne da ngay daan si da ngay ñëw daanu ngeer ne ko baax na. ñëpp dañ la fay bàyyi man ma ma jël li tax ma jël la am na ma ko teg. waaw mbër nag bu la jëlee moom am na lu ko lu ko tax mu jël la am na fu mu ko teg mm-hmm. mais loo ci mën a dégg daal boobu mooy drapeau Abdourahmane Diaw ci bisu le 27 boobu kon jàppal ne samedi tamit incha allahu rabbi arène nationale nar naa neex trop trop ay sotu fay mm-hmm. dañuy jeexal Babacar ak ki nga xam ne ni mooy euh, Jordan Jordan tamit euh, ren gi suñu ko ginnaaw bi ko fii rek rek daanee woon mais tamit moom nee na dafa bëgg dellu si te bëtam daf ko teg ci ki nga xam ne mooy Malick Niang moom la bëgg jël corriger ko mun a dellu si en force si lamb ji maanaam daal jël ko jubbanti ko waa kere Iba maar de gis naa ko mu koy dëkk Malick ñaa toog ca kaw Jordan ne ko wàccal <laughs> yaa ngi dégg ah, comme nag jël ko jubbanti ko la bëgg ana promoteur yi nañ ko dox combat bu neex la war na mën a nekk waaw waaw bien sûr waaw waaw waaye itam li ma leen di wax rek mbër moom bu la benn mbër tax bu bul ko fixé ba tax boo gisee leneen doo bëre. waaw xay na mën ngaa bëgg Malick Niang mais bu ko Malick Niang nangu itam bu mu la bu ko bañee bu mu la teree gis beneen adversaire bëri ji ak moom parce ñoom ñëpp ay mbër lañ ay xale la ñu ngi ci làmb ji mais liñ ci mën a dégg liñ ci mën a wax daal mooy que ni su amee dina nekk lu neex a neex a neex a parce làmb ji comme li ma waxoon biir quoi loolu dafay am solo day waa day dundal alors ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di gërëm yàgg maa ngay ci caméra bi di gërëm Ousmane ak équipe Leewtoo TV bi yëpp mais tam comme ni ñu à chaque fois rek di bëggee ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV jënd seen connexion du ñu suivre di leen di bëggee bu baax di leen ñaanal jàmm ju sax incha waaye Aysatu amin la ñuy wax rek yàlla na yàlla nangu ñaan ah waaye nag tey dañoo xëy yàlla def ñu xëy dëkk bi taw wàcc fii te muy loo xam ne tamit dafa ànd ak àddina bi ndax am na lu muy dundal ci nature bi muy gàncax gi ak tamit jur gi nit ñi sax da leen di dundal kon dañuy ñaan nawet bi nga xam ne dugg nañ ci ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilahi rabil alamin lépp luñ ci bay rek mu nekk muuru ñi ko bay dañu ñu fekkee lépp te tal ko parce que comme li rek man baykat la bool bool laa lii daf may neex xam nga xëy dem tool yi ji gerte gi mbott yi ngoox dafay am solo ah ma ci profité di nuyu tamit sama mbokku kaw kaw yëpp wala waa kaw gi yëpp ñu ne ci àll bi di bay rawatina nag sama dëkk ba di ak yaay maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu sama mag sama xarit. sama meeru commune maître Pape Sène di ko ziar di ko ñaanal jàmm bu baax a baax président comité sénégalais des droits de l'homme maa ngi lay nuyu bu baax a baax maître di nuyu internautes yëpp mais tam di nuyu ma jox maillot Paris bi ma sol maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Serigne Diour ma yónnee maillot Real euh, kon Serigne Diour moom mu nga ba Italie maa ngi koy nuyu di ko ziar yàgg moo ne woon ci film bi Ousmane mooy monté Aïssatou sama rak sama xarit laa toogaloon di nuyu waa Leewtoo yëpp yëpp yëpp yëpp rawatina nag Aïda Diouf maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm bu baax a baax. Mm. di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak Aïssa. suba ak jàmm incha allah.